Hazır. Süper. Sen geç anlamı. boy man je suis pas pour nous déclencher parce que micro bi moo tax mais demal micro bi ngay mute fii ba mu da gën a jaas gën mit mit ko. fii da ko rek génn. xola Diallo il faut après am ko ma vérifier

Não,

damay wax dama ko bëgg wax euh, sénégalais yëpp seede ma parce que damay may wax c'est des informations de première main yéen ay gérer sécurité foofu ma wax waa APR dañoo recruter ay ay centaines de nervis nervis yooyu nag ñi ngi fépp taxaw ñu ngi ci VDN bi ña nga Parcelles Assainies ñenn ñi planifié nañu dañuy ñëw attaqué sama kër ñuy jël nag Sénégal yëpp à témoin parce que loolu Macky Sall ci boppam Macky ci boppam ci liñ ñu wax ci information ak soxnaam ak doomam ak benn général bu nekk pare ñooy coordonné directement ak nervi yooyu di leen jox ay instruction bu dee nag Macky Sall guerre civile bëgg ci réew mi du am waaye lii mu nekkee bu ko continuer liy tooy ci moom lay jóge loolu daal la bëggoon wax jël Sénégalais yëpp à témoin je le dis en français également pour la communauté internationale et dire aux gens que Macky a planifié avec sa famille, son épouse, son fils, d'après les informations qu'on nous a remises et qui sont des informations de première er mai, ils ont recruté des centaines de nervis armés pour euh, s'attaquer physiquement à nous, s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et l'autre objectif de ces nervis, c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yewwi Askan Wi je tiens à informer l'opinion nationale et internationale ce que je dis les forces de défense de sécurité sont informées elles le savent très bien mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Macky si l'objectif de Macky c'est de créer le chaos dans le pays de créer une guerre civile je dis à monsieur Macky Sall que c'est voué à l'échec il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personnes, parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont, nous savons qui les recrutent, nous savons où ils habitent, nous avons des audios, nous avons des vidéos, nous savons qui ils sont. Et ils ne représentent rien par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. donc je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile au Sénégal, mais Macky Sall risque de son second et dernier mandat. Je vous remercie.